asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki safo GP TV Sénégal tey GP mu ngi fii ci Kër Baka seet si koo xamante ni ndaanaan la waaye seet si ñoo xamante ni ku nekk euh, xam na leen fi nga xamante ni mooy diwaanu euh, Kër Bakar Kër Baaba ak yi wër Tiwaawan yëpp xam nañ leen parce que ñu ngi fi def lu am am solo tey bu ñu dikkee seet si ko nag ñu organiser fi programme boo xamante ni programme bu mag la programme boo xamante ni programme GPTV Sénégal la tey moo tax mu ñëw fii ngir bëgg a waxtaan ak moom naka la ñuy dëgmale li nga xamante ni mooy programme bi ak tamit lan moo doon seen wàccaay si li nga xamante ni mooy programme bi ñu koy moom nag mu ngi tudd mu ngi wuyoo si Momo Momo euh, am na slogan léegi nañu ko wax après Momo la wax asalaamaaleykum euh, na nga def ba yaa ngi si jàmm. lay fay maa ngi ci jàmm bu baax maa ngi santu naka yoon bi baa sonu leen ci alhamdulilah. Momo tey ñu ngi fii si Kër Bakar seet si leen ngeen dégmal programme bu mag a mag a mag bala ñoo wax si loolu dañuy lay laaj programme bi nga xamante ni ñu ngeen dégmal kan ak kan moo ko organisé ak lan moo tax ngeen organisé programme waaw Galaye ginnaaw bu ma la joxe sa wàccuwaay ci ni mu waree comme li nga wax programme bi man ak sama doomu ndey suma xarit suma ménager suma lépp Bour Gueweul ñoo ko taxawal te li tax ñu jot ko gën a taxawal ku ne xam na ni 8 mars danoo defoon programme Kër Baba Alima journée mondiale des femmes bi mu réussir aussi tamit fu may jaar ci mbedd yi ñu bari dan may woo moomoo kañ ngay tëgg Kër Bakar kañ ngay tëgg Kër Bakar ma ni bi ma waxtaanee buur tamit mu ne ma ah ginnaaw sa dëkk la te la nga tëgg dëkku jàmbur ñëw seen dëkk nga defal leen ñëw ànd ak ñoom soo ñu kontaan kafre après foo moo gën si la obligé ma ne ko waa baax na kon léegi après tabaski ñu tëgg programme cinquième jour laa ko programme woon soo comme tey mais dama xool xam ne instant bi nii boo xoolee ñu bari dun am temps ci musiciens yi surtout bu ma ko jàppee weekend peut-être mën nga leen bañ a am moo tax ñu jàpp ko le 5 bii nii waaw. macha allah ka foo ak nga bëgg indi fi nga xamante ni mooy si dëkk bi li ngay jéggaani di ko def si dëkk jàmbur def ko sa dëkk moo gën tey programme bi naka lay demee. waaw programme bi xam naa ni dina am ay artistes invité parce que ginnaaw ñun ñoo bokk lu ñu def ñun ñëpp ñoo benn lan ñoo bokk lu bëgg ñoo bokk lu ñu def tey mënoo xewle bàyyi say morom waaw moo tax dina am ay artistes invité mais surtout live bi moom concert bi man moom maa koy woy man maa koy joué ànd koog waa 100 pour cent ambiance. tey jii nii euh, li nga wax am na solo 100 pour cent ambiance nga si amal nga si àndal en tant que Momo mi nga xamante ni artiste la mu ngi way lu neex macha allah tey gis na ñi nga xamante ni ñu nga tuddee bis bi tey boo ñu bëggoon a xam bis bi ñu ngi ko tuddee la moo tax nga tuddee leen bis bi lañ lay doon. waaw xam nga Olof Njaay day wax nii sangu ci teen naan ci teen fóot ci teen bu taxee nga fàtte ndoxu teen doo gor. sangu ci teen naan ci teen. fóot teen bu taxee nga fàtte ndoxu teen doo gor. te doomu aadama nit ku ne am nga ay nit demb am nga ñoo xam ni tey jii bu sa bët xoog ñoom ngay woo am nga ñoo xam ni ñooy say ay mbokk tey jii ba moomoo doonagul dara seen moom la woon kon tey bu ñu demee ba yëngu ci mbiru aar li gën a rafet mooy ñu joxaat leen seen cër jox leen seen gëdd parce que boo xoolee tey jii ñi tudde bis bi ñu ci bari tenewun ma mais tuddee ma leen ko ngir xaalis li tax ma tuddee leen ko c'est parce que ñoom laa juddoo ndool ñoom ma ci kenn sax am am ñoomin it xooluñu sama man-man lu xew xewle bala ñuy wax ak kenn dañuy woo moomoo te booba dara xewagul dara amagul loolu rek moo tax waaw dara xewagul dara amagul ma am si sama ñaari jigéen yoo xam ne si lañ bokk muy Fari Ndiaye ak ki nga xamante ni mooy na koy topp ñaari jigéen yooyu la moo tax nga choisir leen boo leen si bare waaw bu dee ji Fari Ndiaye moom damay sawar wax ci parce que démb rek bi ni déggante téléphone dama ko ni fëri mu ni maa ma ne ko bul am dara yow bul yor dara man maa la bëgg parce que xam naa li tax ma bëgg ko parce que jigéen ju man góor la te yow li may wax yaa ma ko gën a xam kon jërul ma ci sori. <laughs> dëgg la Nogoy Top. sama jigéen la mu nekk sama jigéen bu baax ñu yarondoo ci koñ bi. Mm-hmm. Ndeysaan moom it musul musuma ko dégg ci dara ñàkk fayda mu nekk nit ku baax nit ku respecté boppam aussi. Mm-hmm. tamit vraiment moo tax ma tàmm ko jox jagaleel ko bis bi. Momo bis bu toll noonu yooy yaay jee ambiance bi yëpp yow yaa koy def tey boo ñu doon musal si li nga xamante ni moom nga ñu moom nga ñu naroon may bala ngaa tàggoo lan lay doon nu musal. waaw li indi andi na parce que yaakaar naa kuy ñëw sa dëkk war ngaa am noo ñëwee. surtout ñu lay xaar. tey Kër Bakar mën naa ni man rek ma seulement fi def aar. kon bu may ñëw war naa am nu ma ñëwee. war na maa indi loo xam ne nii après ni ñu dañ koy namm. ginnaaw première édition lañ wax première édition bi daa war a jax. te di nga gis lu garaaw galaay di nga gis loo musul gis ci àdduna Kër Bakar fii kenn ëpp leen problème. léegi yow tey sama sama mosal tuuti rek benn deux secondes wala benn trente minutes looy wax avant yaay nag galaay moom yaay moo koy daaneel. non li koy daaneel daaneel na ñu bari xam nga doomu aadama tey mënoo mel neen ba sa yaay tey nit loo baax baax baax ak koo mën a doon buñ la tuddee sa yaay rek faaw duñ koy parce que doom ci ci siddit la. moo tax ma ni siiw du jàmmi boroom maa ci xam dara du lépp lu yëngoo yow lanu koy jiñ loo fekke woo ñu fent waxu jàmbur am ca ba mu bari lool tey ko sa ginnaaw ba ma gisee di ma ree wan la ginnaaw nga yàq fa sa der loolu ñaaw na. waaw loolu waaw boo gisee ma choisir Thione Seck man moom yàlla daf ma natoo benn affaire man jàng xasida laa commencé man di toppandoo ñu bari tey nekkul ni Thione Seck laa mën a way Thione Seck rek way Thione Seck laa mën a way mais euh, Thione dafa wax benn parole boo xam ne à chaque fois bu may déglu soom daf ciy ñëwaat sama xel daf ciy ñëwaat mu ni way bu jàngalewul xamlewul bu yeetewul est-ce que yaa ngi comprendre nekkatul ay waay ay la mais pourquoi pas ñun waru ñoo mën a yeete te bàyyi ambiance bi dont ambiance bi sax dëgg la parce que gars yi buñ sowul fecc dañuy tëddi nelaw mais pourquoi pas waru ñoo mën a defaraat ar bi di ci jàngale wala en même temps parce que fi mu toll nii ku génne lu bees boo xoolee ambiance lay def rek mais waxul loo mën a dégg te pour man war ngaa mën a wax loo xam ni jeunesse bi ki nga ndaw bi nga xam ne ni dalaa daa wanoon ginnaaw addunaam découragé wu nga nga may ko courage wala ki nga xam ne nii ma ngi toog di souffrir nga may ko courage wala ki nga xam ne nii ma toog di dundu loo xam ne nii leer na lii boo waxee sa parole am na peut-être dina am cofeel ci yow ba retourné waat ci société bi nga may ko sens man looloo tax mooy choisir wayu coon mais nekkul nii coon masala moomu wax ji am na solo lool kàddu yi am na solo kon la cinq du yomb ndaxte lim ñu mosal fii ko ko xam-xam ne la cinq du yomb moomoo tey sa kàddu gu mujj lan lay lan lay doon ak tamit ngay woo si bis bi waaw surtout damay woo géwal moom du ko woo sax jurul moo parce que moom ku ma gis gis ko man moom tëdd rek moo nuy tàqale di ci woo Mouhamed Ba suma xarit suma doomu ndey di ci woo Mouhamed Fall di ci woo surtout fi ma dëkk Kër Bakar parce que ñooñu galaay dañu sonn ndax man Paco ñooñu dañuy daj lu ne am na ci ñoo xam ne dañuy sonn ndax man bu ma xewlee du nelaw damay romb ay meer ay mag ñoo xam ni leer na leen ñi mënuñu ñëw bis ba di la seetaan si mais sa bis bi kañ la ba yaa ngi préparé ba nangam nangam loolu surtout dafa may daf may daf may soke bu ma naroon bàyyi sax ñooñu day ne tax damay gën a jàppaat ak xale yu ndaw yi nga xam ne nii amaguñ sax 15 ans di ci woo waa 100 pour cent ambiance Tafa yow du ma la woo di ci woo ñëpp bu ma limee damay jum di ci woo Ngañ Demba su ma séeri koko première dame kooku dama ko ciy woo su ma jabar grand frère la waaye damay toppatoo comme ni muy toppatoo suma grand frère kon kooku aw ma fayam bu ma ko woo nag woo naa jéeg yëpp su ma jéeg yëpp maa ngi leen di woo di woo jigéen góor mag ndaw bàyyiwuma kenn. di woo waa woon di woo àdduna su ma mbokki artistes yi bàyyiwuma kenn bis su ma bis seen bis la di leen ref di félicité bu baax euh, waa GPTV di leen ñaanal yàlla fit bëgg ñu àgg fa yàlla defal leen ko parce que bu leen neexoon ñu ni Tiwaawoon Kër Bakar sore na duñ dagg seen yitte ñëw tey bi ma la woo da nga ma ko yombalal ba comme si man dama ruus sax pour di la recevoir kon di leen ñaanal yàlla fu ñuy séntu rajo wala télé yàlla na leen fa yàlla jàppale ba ngeen àgg fa tam nekk seen taxawaay ngeen fekke ko incha allah ñu fekke ko ñun ñëpp waaw di remercier waat bu baax nag Bour Gueweul aw ma fayam mënu ma ko taxaw fi sax di ko sant di sant Tafa Jibi Kayta fàttewu ma ko di woo ñëpp bu ma limee damay jum Bamba Sangoone ñoom ñëpp suma ay nit lan ñoo xam ne dañuy sonn ci man waaw di woo àdduna bàyyiwuma kenn vraiment bu ma limee rek damay jum waaw di woowaat Bour Gueweul bu baax a baax a baax a baax Bour Gueweul moom xam naa bi sa bis la ndax sa waaye li la moom woo woowu ko kenn si àdduna mbokk kon bala kañ bala cinq la cinq du yomb de nee naa la moomoo moo xewle te kër Bakal lay xewe Afia mu ngi si biir te Afia lu mu bokkul du yomb ñun p TV Sénégal di délégation bu mag ñeenti kaar la ñuy gaale ak Tata dañuy yendu sax incha allah gars yi tey la cinq merci beaucoup